Abbas. oto buy. lii rek fees. demal si buy. may ma la bës a bind. jàll. mën naa yegg suuf wala def fees.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 jaaxle lol taxaw di seetaan ndaxte nit buy wuyu ji euh, li nga xamanteni mom modi di euh, euh, tribunal comme citoyen yep waye gis ngeen dispositif bi lu mu bon bon amna ay auto yu beuri beuri beuri beuri yu nek suñu suñu suñu ginnaw ay auto police ay wa GIGN ak wa BIP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 la gendarmerie aussi vous voyez le dispositif nous hein. euh, fi del del del del del del euh, journaliste yi dégager fi c'est parce que comme ni ngeen ko nonu euh, dispositif dispositif nonu fi ci auto gendarmerie ak police ken xamul nu mu toll ay blindé je peux dire que nii bi ñu génnee kër gi ak léegi lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw mën naa leen ne ñun gis nañ loo xamante ne war na mat lu mu ndaw ndaw ay quarante véhicules donc ñoom lan la ñu lan la ñu fas yéene lan la ñu fas yéene def loolu la ñu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 ala euh, ci convoi bi ñu am donc ñoo ngi ñoo ngi noonu yéen a ngi seen li fi xew yépp sama mbokk journaliste yi nag euh, xam naa tey moom dina xaw a jafe lool lool lool ci ñoom ñu liggéey ndax ñi ngi nee ñu parqué tere leen agsi fii nga xamante ne fii lañ doon yéegee euh, ci oto yi pour rejoindre li nga xamante ne moo di convoi wu président Ousmane Sonko bu daawoon génn mi ngi nii état de siège la état de siège la résident surveillé askan baa ngi tàccu askan baa ngi tàccu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 président Ousmane Sonko la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 eh eh eh eh eh non non non non mi war a def dis président oh mi ngi noonu cité kër góor gi mi ngi noonu cité kër góor gi mi ngi noonu cité kër góor gi waaw mais bu ñu nekk fii damay live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 ñi nga xamante ne piéton yi topp président ñoo dul jàll convoi baa ngi noonu convoi baa ngi noonu convoi baa ngi noonu convoi baa ngi noonu damay bi ñu oto bi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 ngi noonu xale yaa ngi sonko sonko bu mu dem bu mu dem oto bi dañ ko téye dañoo bëgg wàññi dañoo bëgg wàññi nit ñi nekk ci oto bi bu mu dem bu mu dem bu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 drapeau fi mu nekk drapeau fi mu nekk oto presse. booy oto baa ngi nii ci drapeau bi Ousmane mu ngi ci kaw oto bi ci kaw oto président bi drapeau baa ngi nii wala. <coughs> mi ngi noonu. mi ngi noonu ñoo ngi reprendre. Sonko. Nous avons dépassé les murs des grenades. yéen a ngi koy sonn nañu.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 mi ngi noonu askan baa ngi ci kanam waaw mi noonu Sonko forever Sonko forever Sonko forever yaay ko wax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

Sinilo, eu não ludo, mano. Tá sempre André, que Sinilo na boca. Lá faz oficial que presidente Osman Sonko.

جاي خلي قلبي جاي

tey Macky Sall ñoo ko volonté tey dañuy. nanga nanga nanga tey amul yaakaar dañuy def nanga nag moo ñu yaakaar. waaw. seen baa yi ñëw na de. Yeah. mi ngi noonu mi ngi noonu yéen a ngi dégg xale yi di woy bur yàlla ñoo ngi lay ñaan Sonko jël ndam li xale yaa ngi noonu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 ñu presidente noonu oto président Ousmane Sonko ngi não noonu noonu mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu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

biñu nonu noonu ñoo ngi jëm rond point Stel Mermoz oto président ngi nonu xalé yang ngi nonu topp ko di daw askan baa ngi askan baa ngi ñu ngi noonu xale yaa ngi noonu ànd engagement ak détermination comme ni ma koy waxee yaa ngi noonu ñoo ngi agsi ci rond point Stèle Mermoz fii nga xamante ni en 2000 xale yaa ngi noonu 2021 fii lañu ñu arrêté woon président Ousmane Sonko yéen a ngi seen dispositif bi yéen a ngi seen dispositif bi gendarmerie ngi noon de part et d'autre askan baa ngi nii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 kenn daw kenn jaarul ci premier boy déggu ma ngi noonu Ah, s'il vous plaît rien mais président va dire un mot. Euh, faire une déclaration. et comme je vous le disais que ñoo juste Estelle Mermoz.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

jël mooy fu direct sur la page du président Ousmane Sonko comme vous voyez risque de, de, de dégénérer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 président ngi noonu génn na président génnaat na deuxième déclaration taw leen fii ñëpp fii tout le monde là eh tout le monde là prop prop prop

international non président presse internationale waaye la presse nationale bi ñu commencé nañ tirer ay grenades lacrymogènes ce vous euh, monsieur Il vient de charger charger presse charger presse président waay booy bu leen écarté waay. booy may ma may ma may ma. gis nga xoolal ci biir nit ñi la ñuy sànni ay grenade ak ñu ko jox. dem dem dem tijjel tijjel. dugal nii hey dugal dugal dugal dugal maam maam dugal dugal dugal dugal. damay wàcc. taxaw leen. daam yëkkati yëkkati daam yëkkati. mi ngi noonu tiré nañ ay grenade lacrymogène tiire nañ ay grenade mi ngi noonu tiré nañ ci suñu oto ñu ngi noonu tiré nañ ay grenade lacrymogène yéen a ngi koy seen nii suñu oto bi tiré nañ ci oto yi te président Ousmane Sonko mi ngi noonu ci oto bi ci ginnaaw tiire nañ grenade yi mi ngi mi ngi noonu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

oto yi bu ñu jege oto président bu ñu ko laalee. billaahi wal kitaabi na ñëpp wàcc. yéen a ngi koy seen noonu.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 may ma may ma wàcc moo fi si oto bi yéen a ko ma bëma ba lii di gis nañ. non non on va pas Ay loolu ay loolu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

pardon pardon madame pardon ñu ngi noonu élément yaa ngi xeex mi ngi noonu mi ngi noonu comme ni ngeen ko gisee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 tajal mo bundi bi tajal mo bundi bi. yàlla mën nga mi ngi nonu ñi ngi arrêté suñu ay agent mi ngi agent GIGN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 Le véhicule ne bougera pas. Ils vont certainement brutaliser. Ils ont déjà commencé à brutaliser le président Ousmane Sonko. Mais il y a une image. Il y a une image. Il y a une image. L'avocat, maître Siré Clédorli, il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 mingi nonu mingi nonu extraire nañu président jël nañ président ñu ngi koy yobu ci seeni dam daam jël vite bu ci ginnaaw wajal wajal comme dan ñu ngi noonu mi ngi noonu ngi tiré ñu ngi tiré ay bal réel tiré waan nañ sécurité bi jël na président Ousmane Sonko mingi nonu sécurité bi récupérer nañ président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 jël nañ auto mi ngi nonu voici l'image de la démocratie sénégalaise mi ngi nonu suñu sécurité bi keuf nañ président ñu ni du dem ñu tirer ay grenade lacrymogène ak ay bal ñoo ngi nonu on va voir Wali wàccal wàccal mo ko Wali Wali Wali Wali qu'est-ce qui se passe mi ngi nonu tiire nañ ay grenade lacrymogène yëkkatal yëkkatal vitre mi ngi noonu sécurité bi laay daam ñu ñëpp ñoo ma ñoo fu ñu jugee. mi ngi noonu yéen a ngi koy seen noonu ci image yi. père ji bi ngi nii père ji bi ma ma woo père ji bi wàccal ma ma woo père ji bi père ji bi Père Djibi, qu'est-ce qui se passe Un président Père Djibi Ils sont en train de le malmener. Oui. Ils l'ont pris forcé de sorte, mmh. en train de le, de, de le bousculer complètement. Ils sont en train de le brutaliser jël nañ ko waay brutaliser fokkati nañ ko doog nañ ko benn oto encercler nañu oto bi sànni ci ay grenade nañu bouger parce que faut ñu extraire par force ah. bu ko neexee sax bu ñëwee ba fii sécurité le merci président merci père Djibi c'est l'homme du président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 le président Ousmane Sonko a le droit de ne pas déférer à une convocation de la justice bu ñu indil mandat d'amener c'est juste une convocation en audience bu ko neexee mu bañ a bu ko mu ay avocat situation bi Non, non,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 ay leen di tijji porte yi mi ngi noonu Mame Pathé ngi nii eh, Père Djibé ngi noonu toute la sécurité est là non non c'est pas toute la sécurité est là nako mo ah lu mi ngi comme j'ai dit tout à l'heure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 benen pelotonya warna. peloton ñëwaat na. booy damay laaj booy cinquante mille personnes ñu lay déglu. saane boo di boo wàccaatee doo yéegaat. booy am na loo xam ñun ñoo ko mën a réglé. non dama lay rek. ma damay def demi tour damay tour wallaay avancé wallaay ma commandant ma commandant mi ngi noonu comme ni ngeen ko gisee suñu oto bi ñu ngi koy ma ne moom itam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 Czy o tobie? Nie ni drapo bangi flote. Drapo bangi flote. Drapo bangi flote. Drapo bangi flote. Nonu ci wetu president Ousmane Sonko. wàccal vitre bi yaa ngi ko wala yaa ngi ko wala wàccal ko. Laye bàyyi ma ngir yàlla ak yonent bi. waaw da nga ko doyee kii di mag président ah, da ko déglu. Laye doo wàcc oto bi. wàcc ma fenn. kon léegi bàyyi ma. mais dafay wéy déglu ko mu lay wax ndax damay live. Laye bàyyi ko. bàyyi ko mi ngi noonu. mi ngi noonu. mi ngi noonu. image yi ngeen di seen noonu oto yaa ngi noonu. mi ngi noonu président mi ngi toujours ci oto bi ko militants yi dugal et sa sécurité c'est une pour les forces de défense et de sécurité drapeau baa ngi noonu di flotter yéen a ngi koy seen.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 La sécurité est toujours présente. La sécurité est toujours présente. yéen a ngi gis noonu yéen a ngi gis noonu Guy Marius Sagna ñëw Guy Marius Sagna ñëw Mom itam mi ngi ci je rappelle que am na ko ñu tiré bal ci tout à l'heure je rappelle am na ko ñu bal tout à l'heure mi ngi noonu ñi ngi arrêté ñi arrêté militants yi